ki miineen Ouest Foire ak Nord Foire ak ba mu dëgër ba mu côté Philippe Senghor bi ku fi dugg di seetub sëriñ moom lay seet kooko di kan al akim borom sarax yi al akim borom sarax yi nga xam ne que miine na foofu ba mu dëgër miine maris ba mu dëgër miine dëkk bi ba mu dëgër ndax euh, Pastef gi mu àndal ci liggéey bi kon ku ñëw wetu hôpital Philippe Senghor di laajte sëriñ al akim lay seet borom sarax yi ku koy laajte ci àdduna bi al akim lay seet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 wa ala alihi wa sahbihi sabiri daan wa tamkin alhamdulilahi xaayil xul yaa ibaadi allazina asrafu ala anfusihim la taxnatu min rahmatillah inna allaha yaxfiru zunuba jamiha innahu huwa xafaru rahim sin euh, sa maa ngi lay nuyu di la di la ziyaare di la di la ñaanal yàlla di ñaanal ñëpp suñ borom gën leen dimbali di di di amaat kontaan ci ci jàkkaarloo gi ñu jàkkaarloo mm. ñu fas yéene leeral ndax damay wax ne mm. àdduna moom bu la yàlla dénkee dara faw ngay leeral. Mm. mi ngi mel ne tey euh, nga bokk ci gouvernement. Mm. lépp lu ñu la mës a dénk rek war nga cee leeral ne léegi lii nga ci def. waaye di di dem di dem doo leeral loolu baaxul. Mm. te yàlla moo ne kulukum raahi wa kulukum mas'ulu an raahiyatihi moom ci jëmmam. lépp lum la dénk dina la ko laaj. même bu la dénkoon ay xale nga leen di jàngal. dina la laaj naka nga leen doon sàmmee. wax nañ ni ba ci jigéen ji nga xamee ne dafa nekk jëkkëram des na ko laaj naka la doon toppatoo jëkkëram hmm. imam bi jiite nga xam ne euh, dangaa romb benn jàkka di di dem jàkka ji nodd nga ni xaar ma julli doo ko ñibbi hmm. diggante ba nga ju ba nga fa dugg di julli imaam ba des na ko laaj bis boobu des na ko laaj ndaka ndaka nga sàmmee euh, ñu doon julli ca ca jàkka ja hmm. kon nag euh, leeral lu am solo la ci doomu aadama waaye nag li may bañ mooy nit kuy terreur di dem di dem ndax dañuy wax ne nit ki saa bu dee dox bu dee dox di dem nay xool li ci ginnaawam hmm. ba xam amul lu ko fa kasal ba xam amul lu ko gàllankoor bu fekkee dara gàllankooru ko mën nay continuer dem hmm. bu fekkee nag dafa am lu koy gàllankoor hmm. na toogaat xoolaat boppam ndax dañuy wax ne euh, doomu aadama réer mooy waral di dugg ci euh, loxo waaw dama yaakaar ne ku xooloon sa démb. Mm. lépp loo jublu rek di nga ci seet yàlla wala mm. di nga ci def li nga xamee ne moom la suñu borom bëgg. Mm. waaye dañuy wax ne doomu aadama matut. ñàkk mat moo waral muy jum. même yàlla suñ borom subhaanahu tax la sax euh, képp ki nga xamee ne da nga koo tooñ. li muy soxla mooy nga jégalu ko. nit ñi nañuy bañ a nañuy bañ a naagu. wala ngay juger nit. muy kii da ngay dem sawara. loolu baaxul yenn saa yi koy dégg mais nag. baaxul ñu ciy dugg ndax man li wax mooy. ab sëriñ dafay dafa war a yem ci cadre sëriñ. cadre sëriñ. Euh, mag ñi bu njëkk la nekkoon seen yitte mooy secret. Hmm. buñ masaana dem ci seen moroomum sëriñ dañuy mën a yittewoo mooy ab secret. ab waaye du ñu dem ah diw de wax na lii nangam ak nàngam wala nga génn cib tele di wax ne ah euh, message euh, exemple Cheikh day faatu ci at mi. Hmm. chambre boobu waaw wala wala nga ni wala nga ni <laughs> diw exemple. waaw doo waxal Cheikh day am milliardaire. ci at mi kay day am milliard ci nga ni diw wala nga ni Sénégal am na balaa bu fi wàcc. Hmm. wala am na ay accident yu am. Hmm. xam nga dama damay wax ne gis nga euh, nit ki nga xamee ne da ngaa seen dara muy ñëw. Hmm. ngal la boo ko mënta wëlbati rek bu ko wax doomu aadama. ndax tey jii tey jii ak noo nu ma mën a mel tey jii ma doxoon ci mbedd mi di dox gis romb benn waaye dox romb sëñ bi rek mu ma yow suba da ngay nu ma mën a def sama xel naa ci bàyyi xel. bu la Baye Mansour waxee loolu. nu ma mën a def naa ci bàyyi xel. bu ma la gëmee bu ma la gëmul lépp ci yam hmm. moo tax dañu ab sëriñ dafa am ay ay melokaan yoo xam ne ko waram hmm. euh, bokk na ci maanu. maanu. na ci ragal yàlla. yàlla. Euh, même boo gisoon ab safaan sax waroo ko wax doomu aadama. Hmm. kooku la ñuy wax waaye toog ci télé euh, suba lii day xew léeg-léeg day xew loolu boo man boo personnel. bëgguma kay ku may àndal sax ma gisee nga def loolu damay kii ndax parce que dama naan bu fekkoon maanu nga mhm. yooyu ngay def doo ko def moo tax damay wax ne nit ñi nañuy nañuy delloo ci seen xel ci yàlla mhm. programme suñu borom kenn xamul lan la nit ki duma ko jugé mhm. samay samay mais tamit am na sëriñ su bëgg bës boo xam ne que penalty bu ne ko ko wax nga bës bës seex da koo jarul man de soxla ko amul sens te xam naa ni ku bëgg lu baax soxla ko ndax dañuy wax ne euh, am na ay ay ay ay ay kii nettali yooyu dégg de ba ba muus mi jinaax ji doon ñaanlu ne ne ko même bayra laa bëgg mu dem mu génn muus yi di ko topp hmm. mu ñëwaat ne ko muslaay muslaay ah, na na ci ànd ànd ci muslaay waaw hmm. nga xam ne loolu mais maam exemple lañ la jox rek ne la hmm. euh, yooyu amul sens gis nga li gën a am sens mooy nit ki na nekk ci li war a nekk dëgg bu nekkee ci li mu war a nekk yàlla nag mooy mooy dogal mooy jël ku ko neex rek mu jox la. mais nit ki bu fekkee ne euh, jaar nga ci yoon yàlla mën na la dimbali. waaye d'accord ma di toog ci télé naan nangam ak nangam déedéet man boog li ma soxla li ma yitteel mooy xam-xam. xam-xam bu ma déggee ni ah yow de xam-xam ngay waxtaanee boo doon def euh, cinq heures de temps sax naa toog digg la. parce que euh, man ngaa wax loo xam ne dina ma jëriñ. man mm-hmm. man ngaa wax loo xam ne dina jëriñ xam-xam. Mm-hmm. waaye du ma toog mukk ah, naan suba lii ma xew mm-hmm. lii la mooy xew non non loolu baaxut loolu boo ko ci ab sëriñ dëgg sëriñ bu maanu dëgg loolu boo ko ci day yem place am daal moo tax daal dafa nekk xam naa <laughs> gudd na mais pour mm-hmm. du ñàkk ñi leer non non baax na parce que am na sëriñ xam ne que ñi ngi ci internet bi mm-hmm. siiw dina leen waral ñu attaqué ku ne dugg ci lu ne defi penalty ba ay commentaire sax ñemewuñ ko fa bàyyi ndax xam na ne bu commentaire ubbeekoo du baax ci ñoom te di wax ne bës moom njëriñ li bariwul de amul benn bës boo xam ne que date bi <laughs> balaa dina def deux deux semaines te du primé fii. Mhm. ñi ñëw muñ jot de dañuy wax ci leneen de. wax dëgg yàlla. dañuy wax ci leneen de jamono ji déggoo fi ku fi tudd turu Maradona. Mhm. bu dee bës rek doyaloon na ko. lépp solo. Mhm. mooy. sa digganteeg sa borom. sa digganteeg jaam yàlla yi. bu loru bu lore. sa digganteeg yàlla nag yàlla bari na yërmande. loolu la de waaw mais ëppal bu baax. xam naa dina dinaa la leeral. mais gis nga am na ci ay nit ñoo xamee ne bu leen yàlla euh, mais xam-xam. Hmm. gis nga euh, yàlla yàlla xam na ni lépp lu ñu bëgg a def mën nañ ko def ci àdduna. di hmm. xam naa dinañ la ko dinaa la ko. dinañ ko wax nga doon ñëw ci ñu dugg ci gars yi ni xaar ba pare après ñu ñëw ci yooyu. Hmm. parce que xam naa ni ma gise nii ku maandu ki nga doon te dal. Euh, bu amee looy dénoncé rek nii am na loola metti ci. doxalinu sëriñ. et tamit gis nga bu ne maandu. maandu. Euh, noppi ci loo war a du mhm. maandu de mhm. ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax mhm. wax ci loo war a noppi tamit du maandu yooyu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax nit euh, booy wax waxaloo sa bopp mais ñëpp ngay waxal pour njëriñ nit ñi nag dañoo gaaw ci boo leen booy wax dëgg ñu ne diwlee gaaruwaale booy kii critiquer mun a def maa soxare booy kii kon nag ku ni waxal dëgg alxuraan li muy gudd gudd gudd juróom benn fukki isi bi aaya bu ne bu waxee dina am ku dëppoog la muy wax boo bëggee ne kon kii man lay waxal day son day sonn waaw ndax dëgg moo mel noonu. dëgg mm-hmm. moom fu mu jub rek. Mm-hmm. boo ci jot sa wàll day mel ne yow la ñuy waxal. yow la ñuy waxal kon nag dëgg ragal ko ba bañ ko wax. Mm-hmm. tamit bokk na ci ñàkk dëggu daal. ñu bàyyi ko xel. dëgg la maire foofu bu dee mënul bindal boppam paa bi ba di neexul ki wax ci saal bi mu noppi ki dox ci mbedd bi mu dugg ci biir. numéro al akim borom sarax yi numéro yi am na whatsapp nag. yow mi nekk bitim réew da ngay woote appel. normal bu jafee nga dem ci whatsapp bi ojo yi bañ a gudd ba mu ëpp. bu ko tegal sa àddina. yow mi nekk Sénégal nag ñëwal fii

du ku siis sax du fa jege moo tax day joxe gars yi lekk ba duñ man a dox day xontaate baax na ci njaayeen yeeg mooy loolu quoi so docteur benn place la toog mënatul wax bàyyi ma mënatul wax gaa yi daal mooy loolu al akim da xont a xontu ak ki mesure xam lu mu leen dóor daal gars yi mënatul wax man nag damaa woor moo tax so beneen bi defal 77 091 77 26 77 091 77 26 77 091 nag pour ku déggul daaj te mu sonal ko. 0 la ak 9 ak 1 mooy 091. 77 ñaari 7 26 2 ak 6 kon da nga def 77 091 77 26 numéro yi am na whatsapp. al akim borom sarax yi lan dalal. al akim borom sarax yi man nag euh, maa ngi nuyu 10 000 problèmes. 10 000 problèmes li tax ma koy nuyu. li muy bari bari bari problème. kii toog moom zéro problème laa koy tudde alaakim borom borom sarax yi. zéro problème ndax lan la euh, biñ dalee def émission ba léegi yàgg na. doo dégg kuy kalaame doo dégg kuy dal ci kawam doo dégg ku koy indili problème doo dégg ku indili problème liggéeyam daal xam naa organisé wu na ba mel ci melokaan boo xam na que bokk na ci sëriñ si ma naw nga xam ne que bu doon ñëpp ngi mel ne moom it problème du bari loolu moom bokk na ci li ma koy seede te yàlla tax wan ne moom rek a baax déedéet hmm. ku toog man leer na man yow mii bokk nga ci ñi ma indi lu jafe-jafe hmm. dinaa ko waxee nii hmm. ñu xam ne yow mi bokkoo ci ñi teg nit ñi ay coono kon mi ngi koy teg ci yoon te yemul ci baax rek tamit wax dëgg yàlla mi ngi am résultat bu baax a baax a baax a baax ndax nit boo xam ne que nit du la kalaamee ak moom te ku juum parce que nit ñi dañu doon xaw a soxor bis boo nee dund kalaame ak yow rek nga seen ab kalaame bu jógee fenn waaw bu jógee fenn moom dina ko rectifier indi ba mu leer ba nga xam ne moo nekk ci dëgg kay wax xam ne moo nekk ci dëgg yàlla xam ne moo nekk ci dëgg kon yàlla dëgg ki wéy lii moo tax ma koy wax al akim borom sarax yi zéro problème dix mille problème nag am na dix mille problème mais kii zéro problème leen xam ci moom kon yàlla bu mu mas a am problème ak kenn tam continue al akim borom sarax yi euh, léegi dama ñëw ak yow ci tur win lay dàkkantale muy mm, sarax ñenn ñi ne sarax ku xam sa sarax mën nga taaye sonn mm, mm. ku xamul sa sarax mën ngay saraxe lu lay dugal ci problème ñàkk saraxe tamit mën na la dugal ci problème sarax mën naa fàng lu rëy ñëwal ñi ci sarax ak li tax ñu naan la borom saraxe depuis ba nga nekkee xale nga dala saraxe wala dañ laa yàgg sarax ba ngay wuyu nangub sarax wala la waaw suñu sa hmm. maanaam gis nga euh, loolu da ciy baax hmm. ndax nit dañuy wax ne arab bi dañuy wax ne fa inna kasrata asma dallatun ala sarafil musamma hmm. euh, dara bu teddee foog day bëri day bëri euh, li tax ñu naan alxakim borom sarax yi. damay wax ne sarax moom nit ki nit ku ci nekk war na ko xam. sa sarax. waaw waaye nag dafa am ay sarax yoo xam ne passe partout lay doon. passe yoo xam ñëpp mënoon ko def. ok am na ci ay sarax yoo xam ne nag ñëpp waruñu koo def. mi ngi mel ne tey jii seex yow da nga am sarax. Mm-hmm. waaye sarax ba la koy la koy dundal ndax damay wax ne sarax moom. dafa dafa am dafa am benn benn jëmm jooy dund. jullit rek moo war a saraxe wala ñëpp war nañ saraxe. dañuy saraxe. ñëpp mën nañ saraxe doomu aadama boo gis. Mhm. am na rawxaan. Mhm. te rawxaan dafay xiif di añ di lekk la koy dundal sarax la. sarax la. loo dégg yenn saa nga dem ci sëriñ. sarax ak ba ban différence la am. waaw sarax ak mhm. bokkul. ndax waaye la leen wuute waa muy ci yéene. innama ahmaalu binniya maanaam yéene. mooy lépp. tey jii léegi nan ngay gisee ñi nga xam ne ko ku leen mayoon xaalis ñu jël mais boo leen saraxoon xaalis ñu déconné tuuti. waaw loolu maanaam am na ñu rëy ñoo xam ne que dañ naan man du ma lekk sarax boo leen doon sarax. waaw loolu la te mu ngeen raak ci. xam nga loolu li koy waral mooy rëy te dañuy wax ne rëy. Mm. baaxul ci doomu aadama. yu ñu sarax nag waaye sarax dafa am ñu ko yeeyoo. dafa am ñu ko yeeyoo. mooy ki nga xamee ne miskin la. Mm. wala ki nga xamee ne faqiir la. Mm. kooku ñoo ko gën a yeeyoo. même boo jëloon yoroon alal ko saraxe. Mm-hmm. jox ko koo xamee ne yeyowu ko. sarax bi du am benn sens. du am sens. Mm-hmm. nga jox ko ki ko yeyoo mooy faqiir bi wala miskin bi moo gën am solo. Mm-hmm. moo tax daanaka damay wax ne nit ku ci nekk. est miskin bi miskin bi sax du ko gën a yeyoo lu bari. parce que faqiir bi léeg-léeg mën na jóg lijjanti ci boppam miskin bi moom. non bi mooy gën. Mm-hmm. mooy ki nga xamee ne dafa ñàkk amatul dara. xam nga dafa yoo xam ne mën nañ jóg wuti ko. amuñu kersa mën damay li may bañ mooy gis nga nit. damay wax ne nit moom. boo demee ba yàlla suñu borom téye say cër. Mm. kooku mën ngaa toog mais en tant que suñu borom mi ngi am na ci ñoo xam ne sax da leen di gis ñoo xamee ne. Mm. Euh, yàlla xam na ne du ñu yor ay ay tànk. Mm. mais dañuy jub di daan seen doole. mais li ma li ma contre mooy nga toog fa nga toog dara jotu la. sa yaa ngi yor say loxo. yor say yor say tànk di dem ak ñëw. ba pare ngay wal di yalwaan di yalwaan. Mhm. non yow laa business dafa am de foofu tamit ñu contribuer ci gis nga yow mi xas bay saraxe mhm. waa ji sol costume bi naan la paasu pikin laa soxlaak damay kéeg lu mu mën di doom yow boo xasee ba ko jox fasal ngir yàlla rek mhm. bu ko jox te naan nii lay def rek taxawaalook ah, dañuy taxawaaloog naanam nangam parce que léeg-léeg yolaankat yooyu man na ëpp weer bi li ñuy am borom bureau am na parce que yolaan amul frais euh. yolaan doo ci fay juuti doo ci fay benn taxi te tamit li li nga war a jënd dañ la koy sarax te te ci beneen mucc bi nga muccaat kenn du la laaj ndax dañ naan ab yolaankat la. maanaam xam yolaan am na avantage. Euh, gis nga loolu li may ci wax am na ci benn histoire mu déggoon fan yii. Mhm. benn maire boo xamee ne. Mhm. Euh, banque bi ñoo ko doon félicité. banque bi <laughs> ndax li ñu ko doon félicité mooy. Mhm. lam mu fa daan versé. te maire bi ab yolaankat la ab yolaankat la. mu leer ne. maanaam gis nga nit ki bu fa la yàlla dimbalee nga yor say cër. jugal nga wuti liggéey. ki nga xamee ne nag dem na ba nga xamee ne euh, yàlla joxu ko ay cër. kooku mën naa toog yelwaan ndax parce que loolu mooy métier. bu amatul pexe. Mm-hmm. waaw bu demee bu amatul pexe mais ki nga xamee ne man naa man naa mën naa dem liggéey na dem liggéey moo tax may wax ne sarax gis nga sarax. Mm-hmm. kañ ngay xam ne dafa am solo tey jii am na ci ñoo xamee ne tey mën nañoo dem ba toog ci euh, tëdd ci lalu sukuraat. Mm-hmm. gis nga sarax. man naa walbati dee. sarax ci jëmm. sarax ci boppam mën naa wëlbati ndegam luy wëlbati dee nag. sakkantuma mbiri àdduna. mbiri àdduna. lépp la mën ci doomu aadama. mais bu wëlbatee dee nit ki nit ki mën na fi toogaat lu yàgg. lu yàgg. maanaam gis nga gis nga euh, am na ci ay sarax nag waxuma sa am na ci sarax yoo xam ne ngir yàlla moo ko tax a jóg. Mm. tey suñu borom soxna soxna Xadija radiyallahu anha. Mm. ndeysaan moom soxna Aysa safla soxna Aysa. Mm. moom bu masaan a joxe. ndeysaan da daan parfum loxo bi. ndeysaan. da ko daan parfum ba mu neex ndax biñ ko laajee ndax loolu lan la mu ni ndegam li ngay joxe ci loxo suñu borom lay tegu. Mm. kon dees na ko waajal. Ah, nga xam ne tey jii lépp loo ci yiw lay doon. yiw lay moo tax dafa am solo nit kii di joxe ngir waaye nag am na ci yoo xamee ne. tey jii bu la dara gàllankooree am na ci ay sarax yoo xamee ne war nga ko mën a def. Mm-hmm. bu la dara bu fekkee sa wërsëg dafa tëju. Mm-hmm. mën nga am na sarax yoo xam ne boo ko defee yàlla mais sarax yi baax nan nga ko mën a digalee nga xam kum neex xëy def ko yi xam ne ko def ko du jur benn loraange sax <laughs> yooyu nag moom bu dee yi baax daal mooy bokk na ci ay yu leer yi Mm, miskit ci la bokk. waaw kay miskit. suukar ak tàndarmaak. Ah. ba yooyu moom nit bu doon xëy saraxe ci saako amul danger. yooyu moom amul benn danger bu ci nekk ba ci ceeb ak. dugub ak yooyu yëpp dugub ak yooyu amul benn danger. yi mm. am danger kay mooy yi nga xamee ne ay ay ay lëndëm la. ay lëndëm mm-hmm. mooy zulmaan yu. ay ray ak xeet yu xeet yu demee noonu yooyu moom. Mm. wala ngay même man ngaa bañ a rey mais nga jël li ngay li yor bakkan nga saraxe ko. Mm-hmm. moom tamit nañ ko moytu ndax parce Ah, dafa daanaka ci doomu aadama du yor dakkam bakkan bari nit ay mbiram tëju loolu moo ko tëj. Hmm. ndax parce damay wax ne lool xam naa dinaa la ko leeral. ci wàllu biddiw lay ci wàllu biddiw léegi comme par exemple ku mel ne saaru Cristiano Ronaldo bu jekkoon jekk rek. Mhm. xamul luy sarax. Mhm. Euh, Juventus am match mu jënd ay miskit saraxe ko wala ay suukar saaku suukar sarax ko da koy jëriñ dara moom. waaw bu ko joxee noonu yooyu moom da koy jëriñ ndax parce boo xoolee euh, ñi bëgg ndam. Mhm. boo koy même boo souvent waa na ku dul saraxe ceeb wala wala dugub hmm. wala ay fruits hmm. yooyu ay ay ay sarax la yoo xam ne ñëpp mën nañ ko def ba ci chrétien bi sax mën na ko def yooyu hmm. boo ko defee yàlla mën na la caa may ndam nit ki nag nu muy xamee saraxam waaw loolu xam naa faaw ñu dem ci table bi ñu dem ci table bi ma ma ma leeral la ah. nit ki naka lay xamee saraxam waaw bismillah euh, waaw kon Cheikh pour ñu leeral euh, nit ki naka la war a def pour xam saraxam léegi bu ñu jëlee exemple ci sa tur Cheikh Diop. Cheikh Diop waaw waaw léegi. léegi Cheikh Diop. Cheikh Diop waaw. ok mën nga ma ko defal directement en directement xam sama sarax. waaw bu ko defee bu ma saraxewul sax am ñu ma ko defal. waaw comme exemple rek. la ñuy jël ku baax rek dama saraxee ko mhm. boo jëlee Cheikh. waaw. lii mooy ñaata. 1621. waaw léegi 1621 dafa d'ailleurs li nga ñëkk a def mooy. Hmm. lan mooy rawxaan bi. lan mooy rawxaan. rawxaan bi nan la tudd. Hmm. léegi bu fekkee da nga ñëw ci rawxaan. mais kon instant ñi tudd Cheikh Diop ñëpp ñun ñëpp bokk sarax wala. waaw mais ça n'est pas. ah ay comme dama la jox exemple. exemple tey jii bu ma ko doon def faaw dama a sa tur yaay. mën naa la ko jox. waaw léegi waxal tur yaay ma xool. Euh, waajuru sëñ Saliou. Ah, tur ak sant léegi kon ñu tënk rek. bu waaw wax naa la kii waaw léegi wax naa la waajur sëñ Saliou sant mën nga def. léegi école la léegi. sëñ Saliou sant. waaw léegi dañuy wax ne. Mhm. kii mooy lépp. mooy lépp. Mhm. Euh, waaye kii nii ci la kii soxe ko. Mhm. waaye nag ka ngay utiliser lii am na adat booy wàcce. waaye ki ngay jël da jël ndey ji moom nga jël. Mm-hmm. boo ko jëlee léegi lii lan la un. Mm. gis waaw maanaam sa bi dëgg hmm. ak hmm. xasayaa ilu xasayaa waaw hmm. maanaam tey euh, am na xuddaam am na xuddaam waaw xam leen sama sarax bu baax ngeen ma koy defal man may xëy di dox sama soxla waaw Tektal TV ngeen di seetaan Tektal TV waaw léegi al akim borom sarax yi moo nekk ci table bi. Mhm. léegi bëgg a euh, sarax. Mhm. Euh, rawxaan baa ngi nii. mais xuddaam mhm. baa ngi nii. xuddaam baa waaw ak. ak xasa yoo waaye léegi. kii mooy numéro un. numéro un. numéro deux baa ngi. léegi ñaar yi li leen wutale mooy. tey jii bu ma la doon defal listixaar. kii laa utiliser. ki mais am na am na tur boo koy booleel. am na tur boo koy booleel suñu bi nag. mooy secret bi <laughs> léegi. Mm-hmm. tey jii bu ma la doon defal isxaar. Mm-hmm. lu jar may jël beneen wér la lii laay wàccee def ko gis nga bu ma ko wàccee. Mm-hmm. say mbir dafay mel ne télé bi ma jàkkaarloo. ah day leer mais bu fekkee dama lay ñaanal ci wàllu aajo. waaw kii lay jël. kii nga jël rawxaan bi. kon kay bàyyi naa la ak sama bopp moom del xëy di nekk ci man rek. mais lii. kii moo ëpp doole kii. ak xaso yoosin ah. waaw. Mm-hmm. bu dee kii la ko tax a jug mooy. wàllu mm-hmm. aajo aajo boo mën a doon. Mm-hmm. am na xam naa dinaa la wan après xaari bi ñu koy dagal. mais kii li ko tax a jug mooy ci wàllu kës maanaam tey jii xamal nit ki. xam ay mbiram. xam ay mbiram mais na koy xamee nag. tey jii moom ma ko jëloon wérdu ko. def ko mille six cent vingt et un. mille six cent vingt et un tey jii lii bu ma ko adatoon. ma adatoon fii. Ah. ba fii. mille six cent vingt et un la lay jox. Mm-hmm. yaa iilu gi aw sant la. aw sant la. yaa iilu mm. gi aw sant la. léegi même yoo gi. aw sant la. kon man ci àddina ku ma laaj sa rawaan ku ma ko doon laaj. man ku ko laaj nga ah. wax ne ak xa sa yaa iilu. bu dee bii. sama xoddaam xoddaam bi ak xa sa yoo siin. ak sa xa yoo mm. moom moom noonu nga koy. noonu euh, léegi bu ko defee. Mm. sarax ba yow tey jii sa sarax. maanaam zulmaan yu la. zulmaan yu la. ndax parce que tey jii boo xoolee. lii. ñaar yi ñooy am yi ay sulmaan yu lañ. Mm-hmm. maanaam sama sarax mooy siin si mm-hmm. ak xag yi am tomb tomb bi ci kaw. Mm-hmm. léegi nga xam ne tey jii sarax bi lépp lu ñuy tuur deret. mooy si sarax. waaye nag même boo bëggee mu leer la. waaw gis nga tey ji kii boo ko wérdee. dañ lay wan jafe-jafe yi la ngay dundu ba ci même boo nekkoonum njaalokat lépp dañ la koy wan dafay mel ne télé bi nga jàkkaarloo. ndax parce que kii moom mooy loolu la ko tax a jug mooy. ci wàllu jël exemple yu baax yi. waaw non exemple waaw <laughs> exemple waroon am milliard. waaw waaw milliard waaw yii laa sawar ci waaw moo waroon am milliard. boobu tey bu ñu la waroon a nommé. Mhm. kii moo la koy wax. ok mais lii moom. pour ñu mhm. leeral ne nit ñi. bii nii pour wàllu aajo rek moo ko tax pour wàllu aajo rek ko tax ñëw ci bi kon ajo bu dee aajo bi tey jii. Mhm. ma am aajo. mais man côté gént na kon foo ko indi parce que man sama gént amul njariñ de bu mu géntee moom dama koy fàttewaat. bii nii moo koy génne. gis nga kenaan la damay génne di fàtte. loo xam ne mu toogul moo toogul gis nga rawaxaan saa bu toogee ci yow mm. muy nga xam adat bi di ko wér saa bu la nee gis nga nit ki sax mais lu ma imaginer tamit mooy lool de da nga koy gis waaw loolu day am gis nga kii moo lay wan mm. gis nga kii bu la yàlla dimbalee ba nga xam ko maanaam lépp lu war a ñëw mm. surtout nga koy wér jour lépp lu war a ñëw da ko xam ko xam même sens contraire dafa lay ne la sara bi nangam la loolu mën a walwédiku moo gis nga lii bu la yàlla dimbalee nga maîtriser ko loo ci bëgg a def ci àdduna mën ko def kon daal fexeel ma doon milliardaire rek comme jox naa la yëpp. léegi ñi ñëw ci kii bi moom la ci. dégg nga bu ko fàtte ba doo ko bind ci biir émission bi waaw foo koy seetaanati xam ne mu ngi nii. sama mbir mais léegi instant bi ku tuddoon euh, Cheikh Diop. yaayam euh, bokk ak man turu yaay tamit nii lay mel. même sarax lay doon ah même ñoo yem lépp même hmm. léegi tey bu ñu ñëwee ci. Euh, mais listixaar ak seet ban différence. listixaar ak seet. Hmm. bokkul xam nga seet mooy nga toog ci peetaaw. Hmm. mais listixaar moo gën a wér. moo gën a wér. ndax parce ki nga bëgg a ñaanal dëgg ci listixaar mu nga mën a xamee ndax parce que mhm. moo lay tegtal biddiw bi dafa lëndëm wala lëndëmul. am na listixaar yoo xam du jar fanaanoo ko daal. non yooyu mooy ki nga xamee ne dafay xool kër. Mhm. wala kii dugg ci soxna yooyu la mais listixaar dëgg comme tey boo ñëwee ne ma man de bàyyi naa la sama bopp. Mhm. Euh, dama bëgg nga xoolal samay mbir lan moo ma téye. listixaar laa mën a def. moo la koy wax tey jii gis nga soobee bu la leen demalee. Mhm. mënoo fexe fexe ba ku la ñaanal nga am ci résultat. mu nga am ci résultat. même téeméeri butéel boo ko yoroon nga sangoo day mel ne day gën a tëju. day mel ne parce que sa sa sa sa kii bi ñoom ñoo ñoo ñoo ñoo tëju moo moo lëndëm. Mhm. léegi tey day ñëw ci comme exemple. waaw ki ma ki nga xam ne dama koy ñaanal. Mhm. mu mu wàllu wërsëg wala kaaraange. wala wàllu faton léegi damay ñëw. léegi lii lan la seex. rosax. waaw kay. rosax gis nga boo ko arrêté. Hmm. daf lay jox 308. 308. 308 la lay jox. léegi nag hmm. dafa am lim bu ma ciy boole mais dama koy nëbbu. da hmm. ko côté. waaw bii ñaata la. 196. 196. léegi boo ko boo ko boolee daf lay jox 504. 504. non 500. 500 dem leen jàngi lasaraar. waaw 502 la lay jox. 502 dama leen jàng lasaraar allah ki borom sarax yee fi toog waaw. danga xaar ba critiquer kat bu ñëw weddi ko ñu taaj leen yéen ñaar. léegi gis nga 504 la lay jox. Mhm. léegi ma ñëw. Mhm. alakim borom sarax yi zéro problème dix mille problème dix mille la ci yor mais kii zéro problème lañ xam ci waaw kaas yi waaw. xam bi ma boolee léegi dama ma jox 504. 504 waaw. léegi dama boole turu suñ borom bi dox ci wàllu wërsëg. mais wërsëg bi dafa ànd ak kaaraange. kaaraange rasax. ah yëpp waaw waaw. léegi ma boole koog tur bi benn benn tur la. ak mm-hmm. turu waayu juróom bu jigéen. Mm-hmm. ma ma ma boole ko lépp mu jox ma cent 504 léegi naka laa koy dugalee ci ci kër yi. li mm. ma koy dugalee mooy damay ñëw. 500 501 C103 C104 C105 den jàngi C106 hmm. lakkim borom sarax yi 7 C108 hmm. léegi gis nga gis nga léegi hmm. euh, bi ci digg bi mooy mooy xutbu mooy xutbu mooy ndey ji mooy ndey ji lii nii boo ko adatoon wàcce ko. Hmm. même lim la lay jox. même lim la lay jox. lii nga adat ko wàcce ko même lim la lay jox. mim côté bii noonu côté boo ci wàccee noonu la lay jox. Hmm. waaye nag lay waral tey jii dagg naa benn xaatim ba dugal ci comme masalan yow sa tur ak rasaax. Hmm. dugal naa ko ci biir. waaw waaye nag kër gu ci nekk da nga am rawxaan. dafa am rawxaan. maanaam kër goo gis fi kër yi dafa am rawxaan mais rawxaan yi. am nañ yaay. waaw yaay ji. am na taaw. am na taaw am na rakki taaw. Mm. noonu la toppante ba juróom-ñetti doom yi. ba juróom-ñetti doom yi te ñoom ñëpp xam nga seen yaay ak taaw yi. waaw loolu laa lay leeral ne la tey jii bu fekkee ni si suuf gi. comme mm. ñi exemple rek ñu misaal. Mm. Tektal TV abonné leen Tektal TV de ci YouTube bi bés furus bés kolos bi. émission bu ñëw ngeen am ko. léegi ah. tey waaw. yaay ji lii mooy ndey ji. lii mooy ndey jaa ngi nii. léegi kan mooy taaw bi. dañ nu mu tudd nii tanaa ilu non sa yaa ilu sa yaa kii mooy taaw bi mooy taaw bi léegi kii mooy ban buntu mooy bunt bi numéro un numéro un comme ñu ñu ñu misaal ne gis nga tey jii hmm, ni ma ko defee tey mu la doon ñaanal ci wàllu wërsëg mhm. gis nga damay jël lu mel ne aaya waa xew waa xew ma ma tëj dama am pour tënk rek aaya hmm, bu nekk ci biir waa xew waaw ma yaatal mii mi Mm-hmm. gis nga xaatim bii laa ci dugal. gis nga tey bu loolu boo ko sangoo. Mm-hmm. gis nga wërsëg di nga toll ne wërsëgu président. ah sant naa la mission bi léegi jox naa la samay code. waaw léegi léegi léegi xoolal beneen bi may tey mais tamit dama lay santaale leen xam jox naa la sama tur waajur jigéen. Mm-hmm. ñu am jot ñi may. jéem a liggéey tamit gàllankoor leen. waaw loolu laa lay wax ne waaw ñu baax ko même lii dafa ànd ak. kaaraange dafa ànd ak kaaraange. wërsëg la boo xam ne tey boo ko sangoo ku la liggéey de del jëm. moo tax na moom ba tey nga koy tàmbali gis nga lii ku ko maîtriser lépp mën koo ci tey ji tey ji moo si jubloon moo si jubloon waaw jublu ci kay euh, moo si jubloon tey euh, comme exemple mm-hmm. ma ma gàllankoor ci nit mm-hmm. léegi damay def lien la moo tax ñuy dal ci kaw sëriñ si dee leen moytu dégg nga xam na nu muy gàllankoore nit xam na nu muy jëriñe nit toog foofu di waaw voilà lii lan la lay jox laajaan naa la ko. non rek lan la gën a jublu comme exemple dama ko tënk mais nii bu defoon nii. waaw ah? waaw. waaw ah, nga doon loxo la waaw lii bën la waaw léegi lii ay tànk la. lii ay tànk la tey bu ma doon ma doon gàllankoor nit. Hmm. damay jël tuulu Iblis. tuulu Iblis. moo ko arrêté. Hmm. te mi ngi may jox euh, trois cent quarante trois. trois cent quarante léegi moom laay jël ma dugal ko. kon chiffre boobu daal fu ñu ko gis ñu xam ne du bu baax moom. 343 maanaam mu ngi non ah. am na yeneen tur yoo xamee ne 340 euh, kii la. 43 ah, ah. léegi. Euh, bu ma ko bu ma ko tey bu ma ko tëggoon. Mm-hmm. dama koy def fu sobee. fu sobee gis nga balaa jant bee so. Mm. moo xam bu ma neexee ya gàllankoor la ci sa wàllu tànk. Mm. rawaxaan bii lay jël rawaxaan bi tànk bi. Mm. moom lay jël am na nombre loo koy bindee. mooy ñi ni indi li problème ñuy paralysé yëpp. ok misaal. Mm. tey jii mu bëggoon a gàllankoor sa tànk bi. Mm-hmm. kii lay jël. am na mu koy ko bindee gis ko jafee ci sobe mu ko jafee ci balaa jënt bee so loolu dina la dal foo jëlee sobe moom non sobe mooy ci tuus ah, tey bu ma jëlee loxo bi bu mm-hmm. bëggoon a gàllankoor sa loxo loxo bi jàmbur waaw balaa jënt bee so mm-hmm. ci toile laa koy def damay jël raw xaan ma nag laa jël bu ma bëggee gàllankoor sa bopp bi chaque jour muy métti kasaari ka noonu moo tax damay wax ne gis nga ah, bu dee ko soxor nag day boole lépp nit ki metti nag bu la neexee nag rawxaan yëpp ngay boole mm-hmm. moo tax gis nga lii euh, nit ku ko yàlla dénk lu la neex mën nga ci def la mën nga ko def kon moo yore la ab sëriñ dëgg ñuy wax moo tax ne moo tax may leeral ne wax ji jëru ko gis nga li am solo mm-hmm. mooy nit ki nay jëf te yàlla tax nay jëf te yàlla tax mais de sant naa la tey jii tey jii mm-hmm. Euh, am na nu ma koy liggéeyee tey du jar mooy jël raw may jël doom yi ndey ji lay jël tey ma jëlee ndey ji. Mm-hmm. bu ma ko lisxaaree bu dee moom moo may wax rek ne ma defal naa nga bu defee du jar yow ngay bousez mm-hmm. boo xëyee suba paralysé. illah illah. moo tax gis nga yii. Mm-hmm. ay ay secret la yor. léegi bu dee ko am kaaraange nag ak li nga def nu muy demee moom. bu dee da am kaaraange nag. waa fekk yow yaa ngay yàq mais nit ki tamit am na kaaraange ku dul yow. gis nga day wëlbati ko. ndax nit ki war nga koo xool ba pare. gis nga tey boo amee kaaraange ma jël def la may def. pour mm. yow comme ah. exemple rek. waaw ah. tey bu ma ko defoon tey day ñëw ci man. Ah, day ñëw ci yow même li nga yor xam-xam am na ci ay kii maara yoo xam dama leen xam ci loolu. Hmm. maanaam la lañ fi jëlee loolu hmm. bokk na ci. am na ndeysaan am na benn pël bu bu boo xamee ne. Hmm. da da doon attaqué jàppoor te fekk ni kooku da ko ëpp gàllaaj. da ko ëpp gàllaaj. la def lépp dafa sotti ko ci moom. ah illah teguñu ci weer mu faatu. moo tax gis nga yii. waaw am na sëriñ bu ma doon nettali pël bu ko doon bu mu doon jëflanteel de baadu booba la naa ko laaj ba xam <laughs> waaw maanaam gis nga gis nga yii mm-hmm. dafa nekk nit ki na na ci bàyyi xel mm-hmm. waaye nag la jiitu mooy mm-hmm. da ngay xool nit ki ba xam man nga koo jàpp la a ko jàpp ah, boo leereen mënoo dara nga tey exemple tey comme ni ma ko misaalee nii bu ma doon def uh, nopp du du du ñëpp laa koy defal rek damay wax xam ndam parce que am na ci ay nit ñoom dañu bëgg lu yomb dañu bëgg lu yomb maanaam dañuy dégg naan yow ndax nga mën a ñëw non gis nga nopp ke tax ma koy def jëkkër ak jabar yu nekk ci jafe-jafe. yu nekk ci jafe-jafe mais kuy taxawal xalaatu ko. kuy taxawal xalaatu beneen bi mooy. mais kuy ko xàmmee. da nga koy xam. Mm-hmm. bu la waxee da nga koy xam am na ja xam nga mos naa ko def benn ndeysaan ma njëkkoon koo wax euh, benn waay woo ma ne ma moom dafa bëgg ko jëkkëram nangam te fekk ne yàlla xam ne mosu ko takk. Mm-hmm. gis nga bi ma ko waxee ne ko euh, maanaam. kii ni du nit nit ku baax day fa dëgg. Mm-hmm. ci la ma doog expliqué ne man dama ko bëgg a takk man ko nag noonu yooyu doxuñu ci gis nga wax naa eh, maanaam lii nii topp naa ko ba ba seetal benn soxna ndeysaan ndek la day jaay boppam. ak yu bëree bëri yoo xam ne lii moom moo la koy moo lay tegtal ne la lii ak lii la moo tax gis nga lii bu la ko yàlla dimbalee loo ci bëgg a def mën ko def. kon yow lii maa mën nga ci àgg di seet ba bu Real doon fubal. bu la neexee doon laaj résultat bi ñaata nga dem ba xam ne Real tey dafa doon 2-0. gis nga yonent bi sallallahu alayhi ñu koy bi ko bi ko yéefari di di di liggéey. am mm. liggéey nañ ko. waaw ci la ñaari saar yooyu wàcc muy falaxe ak naas bañ koy liggéey genre statue bu mel nii la ci doon ko jaar waaw loolu nag xamam bu ñuul la ñu jël ay pusa mm-hmm. fu ne ñu jam ko ci bi ko suñu borom xamalee ayam aaya bi mu ci jàng aaya bu mu àgg rek benn pusa day damm moo tax gis nga lii xam-xam la boo am mbindum biddiw la nit ki ngay orienté mm-hmm. ne ko defal ma lii far force lii daf koy def ndax parce que mm-hmm. xam-xam la boo xamee ne amul ku ko mën a weddi ci àddina lu ma ci bëgg a def tey ko ci def bu ma bëggee bayra dana xool ay alxuraan bi nga xamee ne day dox ci wàllu bayra mhm. ma adat ko boole ko turu kooku ak turu waay juróom mhm. gis nga bu ma ko ci a jublu ci loolu bu ci suy na na gis nga kooku bu ma ko ko bu ma ko ko alam nasra tam da ci bokk alam nasra waaw uh-huh. mais kooku day ànd ak wërsëg mais mhm. bu dee bayra kese kese dama jël suy na lay jël suy na naa suba sawar men sa léegi bu ma ko jëlee bu ma ko jëlee ba defar ko ko gis nga amul ku koy téye am bayra mm. mais ñi nga xam ne seen bayra yi day ruus nag lu ko waral am bayra boobu du ruus loolu loolu wàllu sunguf la ndax sunguf mooy def loolu mm. ñi souvent am na ci nit ñi sax dem nañ ba ni alxuraan ah nangam ak nangam léegi sunguf lañ gën déedéet sa mm. alxuraan bii a wér sunguf te a gaaw euh, ki ki nga xam jël sunguf lu mel ne masalan tey mu jël benn euh, reen euh, reenu wasosoor wasosoor mu boole ko bëri wérngel gis nga kooku bayra la boo xamee ne ci 41 jours lay yem. 41 jours. am na ci yoo xamee ne day dem ba un mois 15 ah, jours. am na ci yoo xam day dem deux mois 15 jours am na ci yoo xam day dem trois ans. moo tax hmm? gis nga nit ki yor wàllu sunguf. Hmm. bañ na ko ba xam nañ ko sax nit ki bu amee euh, trois mois da ngay renouveler. da ngay renouveler ok waaw moo tax dafa nekk yoo xamee ne mais lii moo gën a wér loolu. Hmm. gis nga alxuraan boo xasee tàkkamul tàkk na. tàkk na alxuraan mu amul fayal. déedéet mais lële ren yi day fay. mais moo tax Sénégal daanaka ñun buñ juddoo ba léegi. daanaka Youssou Ndour lañ fi gis ci exemple koo xam naka tàkk na tëw fay ñu bari tàkkaat nañ ci diggante bi fay. ci ah, beneen métier yu bari xam nga loolu moom. <laughs> yàlla ko yàlla lafal cat de Youssou Ndour ah, loolu dëgg di wax ci yooyu. mais exemple laa jël quoi xam nga mais. ay temps waa 2002 nga doon dégg ay temps nga déggaat lamb ñi. ay temps nga loolu loolu biddiw bu biddiw day fay. day fay xam nga biddiw dafay daw. Hmm. bu dawee ba si yàgg mu taxawal. Hmm. insaan nag mu taxaw taxawaay bu yàgg hmm. mbiri fay mais mën na jékki-jékki jugaat. Hmm. loolu noonu la mel. yow ku la joxoon xaalis bu bari ne la Alioune Mbaye Nder Abou Thioubalo Fallou Dieng nangam ñii ñëpp nañ tàkk mën nga ko la. waaw loolu de euh, Cheikh xam naa ni euh, loolu maanaam euh, julli ñaari rakk moo ma gën a jafe ci loolu. ndax ah. amul tax lii may utiliser. kon kañ la ngi ñëw waaw ah. maam lii may utiliser nii. waaw amul ko ma koy defal koo xam ne doo am résultat. moo tax damay wax ne. kon Balla Diouf dina mën a doon roi des arènes sax bu ko kiiwul. déggoo li ma la wax julli ñaari rakk moo mu gën a jafe. moo la gën a jafe hmm. tey jii bu mu gis nga yii bu rek. Hmm. foo mën a nekk da nga am résultat. Ah. te te mooy résultat boo xam ne du ma sa fay ba ilaa yomi diin. kon gën ngeen artistes yi. kon bàyyi leen xel waaye tey ah. hmm. gis nga dañuy wax ne yàq moo gën a gaaw defar. yàq moo gën a gaaw defar. tey bu ma doon yàq léegi la yàq. léegi nga yàq waaye nag du du question ne dama dama ne dama yàq nit ñi non non. déet ab yaa defar nee naa leen al ak borom sarax yi zéro problème. pour pour may dix mille problème dix la pour may pour may leereel. Mm-hmm. ne ne xam-xam am na. Mm-hmm. ne ne nit ñi nañuy sàkku xam-xam. nañu sàkku ba nii may toll damay sàkku bu ñu ñeema nangam am na fële damay dama fay dem. sàkku dama fay dem sàkku parce que xam naa ni la ma mën a jëriñ ci àdduna. Mm-hmm. Euh, mënu ma koo dab. macha allah moo tax daanaka yii nii yu am solo la moo tax nit ki bu fekkee xam na ko mm. même euh, jërut sax nit ki xanaa bu fekkee ne euh, fexe nga ba xam sa tuuru rawxaan rek mm. jërut ngay woo kenn di ko seetal mm. di ko seetloo déedéet kon man fi ne mu neexee bàyyi seetlu bu la neexee yow mën nga boo jullee gee bala ngaa tëdd jëlal euh, ba mën nañu ko jox mille six cent doses yi nga nga nga kii ko maam boo ko adatee nga wàcce ko di ko wér boo ko wérdee gis nga lépp la bëgg a xam ci àdduna boo tëddee guddi nañ la kon moo tax yenn saa yi ma si defal listixaar nit yàlla xam ne wax lu yéeme. billaahi wallaahi wa taala du ci question ni nangu la mais dama bëgg a ne xam-xam na. xam-xam am na. te gis nit ku la seetal gis nga seen moom. Mm-hmm. Euh, listixaar moom euh, bu fekkee ni am na ci ñoo xam dañ ñaan nit ki bu ma gisee ma doog ma ñaanal kon ma xam ne Sénégal ñëpp lay ñaanal. <laughs> waaw ndax koo jëflanteel gis ko. ku ma ci seetal gis ko. Mm-hmm. damay àgg ba ba wax góor gi sax yenn saa yi gis góor gi fooy boppam day dem ba génne ko. mooy ñi mas yow di utiliser saabu bu ma ku ma ko ci wax day day maanaam day da naan li yow ndaka nga ma mën a xamelee loolu hmm. wax naa fi nit a ah, hmm, yow de hmm. am na dëj booy dëng dëng mal ndax parce que loolu lépp dañ la koy wan da ngay gént nit déet man am na ku jóge France euh, damay bañ a wax tur koo xam ne wax na ma ne waxoon nga ko loolu ne ko sa papa dina fi jóge ak nii. mu am ba muy ñëw ci dëj bi di kii ba mu ñëw maa ko doon tegtal sa kër. <laughs> loolu lu am la. <laughs> jërëjëf jërëjëf ñuy jaay foofu xam mun na ñàkk waaye gis nga damay a leeral. yi nag neex yi moom pour solo gars yi de. Ah. ki bu fekkee dafa bëgg xam lu neex rek. ko toppee mu yóbbu kii bi. xam naa dañ koy tënk rek. dañ koy ba ci beneen yoon. incha allah beneen yoon ñu kii ko mais daal li lay wane ne. Mhm. xam-xam am na daal toogu leen di wax ci xel mu neex rek daal. Mhm. kon alakim borom sarax yi xaaral ma joxaat leen numéro am. 77 ndax lii fii mu toll soxal na leen. 366 46 36 77. 366 bari na de. Mhm. këram ku siis nekku fi. moo tax day yaatal day xont ñaay ni ba ñu bëgg a dee duñ mën a dox ñoom Baye Massa dañuy lekk ak docteur. Mhm. bu baax a baax. Euh, defal 366 46 36 am na whatsapp. beneen bi 77. 091 77 26 77 091 0 la ak 9 ak 1 091 77 26 Alakim borom sarax yi zéro problème nekk ci euh, Ouest Foire côté Philippe Senghor ci wetu pharmacie bi nga fekk ko fi diis ko sa soxla lu mu ci mën mu def ko leneen ñu bàyyi yàlla mi nga xam ne que téléwul dara te mën na lépp Alakim borom sarax mhm. kon léegi dañuy ñëw ci euh, image bi ñuy xool nii lii pour ne yow sa sarax moom dëgg la mhm. yaa nekk nii di saraxee bokkut ak ki nga xam ne que day danaan sëriñ si nga xam buñ xonetee dañuy woo gars yi naa leen saraxel war nga saraxel lii de indi ma defal la ko moo tax nee naa leen kun ciy def loolu rek hmm. na ma jox sama yaay mu defal ma ko waaw mu def sama yaay mu defal kii nag moom ay saraxam a ngi nii hmm. leer na nañ alaaka fii yaa ngi nii de lii ko oo ma jot waaye dafay am ay nit ñoo xam ne bu la nit gis nga nit ki bu la wóoloo ba yaakaar la yénne hmm. la xaalisam defal koo ko defal ko ko ndax lam lay lam lay jëriñ mu ëpp loolu Mm-hmm. gis nga ñaata yoon la la la dem seeraas. Mm-hmm. wala ma jënd sarax yu bëri. def ko muy mm-hmm. bi comme bi ngay gis nii rek. waaw fii de moom yaa léegi nga xam ne nga xam ne. Euh, nit ki boo gisee sax xolam day sedd. macha allah ñaata yoon la ma nit wax ne ma mosu nit de mosuma defal lii. mais dafay fekk ne gis nga nit moom nit nit kese la mën a doon. ñun ay simple nit lañ. Ah. nit ki bu la jar na nga taal sarax bu dëggoo ngi nii di saraxe nit ñi mm. nga taal sa oto nga dem defal ko sarax te gis nga am na ci sarax yoo xam bu ko defee mm. loolu ñu naan loolu ñuy wax naan mos xam la tudd mos xam saa boo ko mosee nga xam mm-hmm. sa quinze mm-hmm. ma defal ko sarax nga defal ko sarax la ilaha defal naa ko ñaata defal naa ko tolloog euh, quinze seize seize sarax sa ajuma bi njëm mooy seizième hmm? seizième seizième. ah kon yalaankat yi da nga leen bi par ajuma la. par ajuma la souvent. ajuma yan heure pour yalaankat yi nand ko côté <laughs> Philippe Senghor. suba rek avant avant ñu julli. kon yalaankat bu yolaan. saraxi al akim borom saraxi. ajuma avant ñu julli jumaa ci suba gi. ñëwal boobu Philippe Senghor. ci rond point bi am na benn pharmacie bu nekk foofu ci kaw tali bi. waaw foofu la mbir yi amee daal. wala numéro yi ngeen jël ko yolaankat yi tamit bu leen neexee ngeen jël numéro yi. pour ñu tegtal leen kër gi. parce que yow saraxekat yi gërëm nañ la. yolaankat yi gërëm nañ la yàlla nga yàlla yàlla gërëm la. ak Serigne Touba. kon ala kim borom sarax yi saraxam dëgg la naa ñëwaat ci sarax yi sax mais dina ñëwaat ci jël ndomba gi ñu xool ndomba gi. waaw gi nga xam ne lu mu jëm ci kaaraanga. Ah? xam nga ndomba bi. ndomba al akim borom yi waaw dafa bëri ay façon Mhm. gis nga yor nañ ci cinq façons yu bokkul. cinq façons yu bokkul. mais bii li tax ñu génn ko. Mhm. day dox ci wàllu wàllu falu. falu. dafay dox ci wàllu kaaraange. kaaraange dafay dox ci wàllu wërsëg. wàllu wërsëg gis nga doomu aadama bu amee yooyu ñaari yére boo ko amee. Mhm. doy na sëkk ci moom. wàllu wërsëg ak kaaraange. ñaari boo ko amee. gis nga lépp loo bëgg. lépp loo bëgg. waaw mi ngi ci ba ci tey coow. wala fay wax. waaw wala wàllu police bi yëpp mi ngi ci. Hmm? Hmm? waaye nag kon El Hadj Diouf bi football bu si woon pour jot ci kaaf takk ndomb gi mën na ci jot. bu gis nga nit ki ku mën a bëgg boo ko boo ko amee yàlla xam ne loo bëgg loo nekk day barkeel te barkeel mooy wërsëg. mooy wërsëg ndomb gi lu koy yàq. Euh, non man nag gis nga alxuraan la lépp mooy sobe moo koy tëj. sobe moo koy tëj sobe bi mooy nga takk ko di sëy sa soxna. Mhm. nga dem di caaxaan ak yooyu. Mhm. loolu moo koy tëj. léegi maanaam ñi koy takk na tey liggéey ci boîte de nuit ni mu demee noonu non loolu du du yàqu ko. yàqu ko la ko yàq mooy nga takk ko di sëy. di sëy loolu moo koy yàq. Mm. amul benn benn danger bu ci nekk. Mm. waaye nag am na ay sarax yu muy àndal yoo xam ne nit ki moom chaque deux mois koy def. chaque deux mois waaw ah, que. bu amee benn yoon mu fàtte ko nag mën euh, mm. tey jii boo koy def euh, sa buntu wërsëg day ubbeeku bu fekkee defaat nga ko dina gën a ubbeeku. ah benn yoon bi nga ko fàtte rek day xaw wàññi ko. même bu fekkee da ko def benn yoon rek. Euh, wërsëg yi foofu lay toll. foofu lay toll li nga war a am sax ah, mi mel ne nit ki am benn boutique ah, yem ca bu saraxee am ñaar saraxaat am ñett ah, bu kii noonu la mel mm. moo tax à chaque fois damay xam ne nit ki jigéen ak góor yëpp koy takk na ñëpp ko mën a takk jigéen ak góor yëpp mm. dañ koy takk dina dugg ci ay ay armeel ak yëpp waaw dina dugg ci la mm. mais lam dul def mooy teeru néew ci biir bàmmeel mais dina dugg ci armeel loolu lépp ndax parce que lépp alxuraan la lépp alxuraan la waaw mais nag juróom-ñaari biddiw yi moom lañ koy liggéeyee xam naa boobu borom xam-xam yi dañ ko xam. koy liggéey ci sept jours lay doon. sept jours lay doon kon ndoom bi di nga ñaq di nga ñuqi di dégg na waaw non c'est kiiwul hmm. nga euh, nit hmm. damay wax ne gis nga coono bi ñuy daj gis nga ñi ngi taxaw ci tableau bi ma lay expliqué hmm. xam tey ji doon defar benn dinaa ci jël temps moo tax damay wax ne nit ki buñ la waxee dara rek bul bul bul bul bul bul bul gàntu ne ah kii li ma wax dafa seer nanga ndax parce que xamal yitte jëm ci def tey ji juróom-ñaari fan yi ma koy liggéey

mooy waral tey jii buñ la bëggoon a tëj. Mhm. kun bëggoon tëj ñu di jël exemple lu neex ci moom. waaw waaw bu comme exemple maanaam <laughs> tey jii tey jii comme benn waay la ñu. buñ bëggoon tëj waaw tey jii ka ko mën a tëj mooy ki nga xamee ne fañ koy àttee du sol tubéy du sol mbubu kooku mën na ko mais képp ku fa sol yére du mujj fenn. xam-xam. waaw Afrique la nekk di tubaab tubaab lu. moo tax ba sànq. dafa nekk loo xam ne te lii moom boo ko amee. Mhm. jëru ngay ragal dara. jëru ngay ragal dara li ma lay conseil mooy. Mhm. benn biir rek doy na benn bi na ay samay client yoo ne dama naan leen dañ wax naan ah doo ma dolli nang mën mhm. bi rek na mhm. loolu moo tax waaw mhm. loolu moo tax daanaka ndomb la boo xamee kon ndomb gi ah, ndomb dul ndomb gi ni bi nag ci lu muy dox jaaro bi jaaro nga wax mooy def annonce ah jaaro bi gis nga jaaro bi ah. benn ndeysaan benn waaye wax naa ko gëmu ko euh, dañ ko waroon yaakaar naa non dafa dafa nekk fen foo xam fu danger mi ngi nekk Torino Torino euh, ndeysaan gars yi di xam foofu dañuy toog bi si yàgg rek ñu raafal ndax jaaykatu drogue yooyu. Hmm. bi jaara bi tàng. jaara bi tàng mu ne dafa am lu ko maas bàyyi ci xel. mooy cinq minutes gars yi gaare ci kanam mais heureusement yoru lu ñuy teel. après mu woo ma wax ma ko ma ne ko nag jaara bi la. jaara bi mu xëyaat suba. Hmm. dem bay génn jaara bi kii mu toogaat këram génn hmm. mais finalement bi ma ko xoolee gis ne moom jaaykatu drogue la. dama ko wax. ko ko wax moom mais euh, nit ñi bëriwaat na ñoo xamee ne nit bëriwaat na ñoo xamee ne dañ koy def di ko nëbb. dama hmm. ko wax ne ko gis boo ko bàyyiwul ah man de mënu ma laa garanti. kon jaaro boobu ma mën a déggee ñi dem ci gaal yi. ko takkoon du ah, ko takkoon comme day annoncé problème. mën nga conseil conseil kenn ñu xëy si ko jël si la. wax de gaal dama ciy a wax leen kuy dem ci gaal tàggoo nit. Hmm. yow min tàggu respecté wuñ la ki la tàgg ki la bàyyi bëggu la. Hmm. gaal du solution. <laughs> gaal moom xum ban solution dem doon président Espagne sax jaru ko pour wax leen lu leer ma boo demee jiite Espagne jaru ko waxuma laa nga dem nekk fay taxaw tay am na sam benn lébu bu rëcc nag nee na ma ci gaal yi dem moo tax gaal bu sullee ko mhm. ñu naan wàññi leen wàññi leen ndànk nekk def promotion lay doon ci ñi ko soxla ndax mhm. Mhm. ci lay siiwee sax ba ñenn ñi seen xel dem ci ñu def ko nan moytu gaal ko moytu mais daal jaaro bi daal dansé lay annoncé Jurgen Klopp entraîneur Sadio Mané bu ko hmm. takkoon ci gàttal. Hmm. Liverpool ñu nar ko éliminer waaw ñu nar ko éliminer ah jaar bi day tànk. da ngay xam maanaam tey jii. Ah. ma waroon a bëri. waaw ma ma dem signature ba tey. Hmm. gis nga bu may dem nii xam nga si eh, eh, làmb dañ koy wëlbati même match dañ koy wëlbati. waaw tey jii bu ma demee gis ne suba dañ may daan. jaar bi day tànk. day man nga def ay pexe. Uh-huh. ba ba ñu wëlbatiku bu dee football kon mm-hmm. bu jaar bi tàngee ñu woo la pexe mën na fi xewal boo boo ko boo ci bàyyee xel mm-hmm. tàngul xamal ne match bi da koy gagné mm-hmm. mais mën na dem nag ba moment mais tàng ban degré lay doon tàng jër lay doon ba nga xam ne bi tey jii seex euh, ni ñu taalee clim bi mu sedd yéen yéen nga ni sedd na boo génnee boo génnee ci biti da ngay gis tàngaay bi noonu lay mel boo génnee comme exemple nga nekk fu sedd nga mais jaaroo jaaroo bi lu ko yàq moom waaw sobe moo ko yàq sobe moo ko yàq comme moo ko yàq ah nit di ko takk di. di sobe daal waaw benn benn waaye nag nee na ma. Mm. seetlu naa ba seetlu mais dama gis ne sa sa émission yu bëri. Mm. doo takk doo takk jaaro bi. Mm. mais leen jaaro bi du jaage ni ci loxo kese lañ koy def. maa ngi nuyu El Hadj gërëm na la trop. El Hadj Ndiaye nee dafa bëgg jël alal bu bari def ko ci Tektal TV ndax kontaan na ci Al Hakim. nee na mi ngi koy ñaan El Hadj Ndiaye waruma ko woon fàtte parce que mi ngi fële ca Gambie. Mm-hmm. ñu ca Gambien la. mais mi ngi Allemagne di ku baax ku bëgg lu baax tamit day gëstu ci xam-xam tamit. Alaaji Ndiaye Al Hakim a ngi nii. toog na ñu ngi def émission ñu ngi lay tudd ñu ngi tudd Ousseynou li Allemagne. Alaaji Ndiaye euh, maa ngi so hawsa so hawsa. it's been euh, meso Al Hakim. Westfalen <laughs> maa ngi ci kii kër Al Hakim di def émission en direct nii. di la tudd Alaaji Ndiaye. ku baax bëgg lu baax nga xam ne que day seetaan tegtal di wax tubaab yi yëpp nan abonné tegtal di mhm. sonn ci tegtal kon tegtal TV la bëgg ah ku baax la maa ngi baax te am yitte euh, nit waaw am yitte mhm. doomu aadama boo amee yitte rek mhm. nekkoo dara tegtal rek lay dund maa ngi koy nuyu bu baax a baax bu baax a baax yàlla barkeel bu baax a baax a baax asay ah, léegi nag ñu ñëw ci sase yi sase yi moom lan mooy njëriñam ndoxum cité wala waaw boobu bii cité ko tax a jóg boobu cité moo ko tax a jóg Euh, lii moom day pare pour dem bitim réew directement nii. waaw loolu gis nga tey jii sax. waaw nu ko nit ki utiliser képp mhm. benn benn benn benn sachet bi rek ngay jël. benn sachet bi ngay jël. waaw. Mhm. képp ku am hémorroïde tamit kasaalika benn sachet rek ngay jël. Mhm. moo tax sachet bi dafa nekk loo xamee ne dafa dafa yéeme gis nga ki ma soxla. waaw sax ki ma soxla mooy. ki am ki am siti Camp City bu ko amee tey bu jëlee benn sachet bi day dañ hmm. loolu moom koo garanti ah Camp City benn da koy jël mu dañ ki am hémorroïde benn sachet benn sachet bi lay jël même bii lay jël même bii lay jël uh-huh. ndax parce que hémorroïde waaw mooy moo City mooy ndey ci mooy uh-huh. ndey même ngóora sax ngóora City da koy gàllankoor City da koy gàllankoor waaw damay jàll si ci mi temps tegtal jox ma benn mu jël benn dinañ ci dinañ ci dinañ ci leeral gis nga butéel yi butéel yi waaw euh, ndeysaan benn waay ko koy defar de ma nga ma nga Suède Suède moo koy defar moom ci bopp. maanaam dama ko ci dama ko joxoon sase bi laa ko jox. waaw ndeysaan mu gis ci résultat ne ma naa la yónnee ay biteel. ndeysaan photo yi gis nga foto yi yëpp. Mm-hmm. moom moo ko defar. moom moo ko defar indi. yónnee ma ko. nga xam ne tey baax ni moo tax sëriñ si jëflante ak ñoom lu rafet. Euh, gis nga gis nga gis nga biteel benn biteel bi rek defe na. benn biteel benn ab fii ci wàllu ngóor waaye waxuma nag ki nga xamee ne dafa am ay hémorroïde. ki amee hémorroïde. ki amee hémorroïde. jëlee du am benn changement. Mm-hmm. ki am ki am ndoxu si di ko ci du am benn sens da ngay njëkkee traité ba pare. mais bu fekkee yooyu benn dëllu la benn bidon bi da ngay jël. avi ah même même da koy da koy réyal. da koy réyal pour ñu leeral rek. waaw tey jii xam am na ci ñoo xam ne gëmuñu ko. gëmuñu ko xam nga saa gis benn jigéen buy jaay ay produits ne lii day réyal ay. ans ay ans ak yëpp waaw xam nga loolu yan na maanaa. na léegi lan moo waral euh, sacré bi mënut munta mënut a rëy mënut a gudd. Ah, te gis nga tey jii Euh, boo jëloon tey jii maanaam pour pour xam naa damay bañ gars yi damay ci tudd tudd euh, tuuti rek. lem bii boo ko jëloon. Hmm. boole kook euh, muscade. muscade am na benn sungu boo koy booleel. Hmm. tey boo ko jëloon di ko ci diw. Hmm. dafay gudd. dina àgg ba tolloog vingt. vingt ci ñaata fan. ci même même kem ni nga koy diwee maanaam bu fekkee sax jour da koy diw. mën nga koo diwlu tolloog quatorze jours. loolu dafay génne. moo tax loolu damay leeral ne loolu lu am la. lu am la waaye nag gis nga. man naa rey sëriñ li tax muy gën a wàcc war na mën a gën a yéeg tamit lu ne am na. waaw maanaam li tax waaye nag li tax gis nga mën naa rey mais du am solo. waaw du am effet waaw ngi jël exemple Sadio Mané ak Morgan <laughs> Morgan war na ko mat ñaar mais bu ñu duggee ci terrain bi. Ah. bu ñu lim Sadio Mané ci Angleterre championnat bi ña ca kaw lay bokk Morgan du bokk ca quatre yi njëkkee. waaw kay noonu la te mën na ko ñaar. Mm. loolu la mën naa mais du am benn dëgër du dëgër. Mm. te même mën naa ree mais dafa gaaw ay moo tax nit ñi li gën a am solo mooy mhm. na yokk bu normal bu normal te mën a yàgg mën a dëgër mhm. gis nga euh, jigéen ñi boobu pour ñu wax rek pour ñu mhm. leeral loolu lañ gën a soxla moom lañ gën a soxla moo tax gis nga boo amee benn biteel bi rek doy na à vie à vie lay doon à vie doy na à vie lay doon ndax parce que kon yi gars yi may def signe de ya ko ya ko waral gis nga nit nit utilisation bi di mu demee baa compliqué déedéet nii defar na nga pare da ngay jël rek nga nga kii. di naan rek di naan. te lu muy saf day neex. non dafa am nag lem. ah, ah kon de dina neex. mais bu par kudd ngay jël. par kudd. biteel bi fu waaye soxla. Mm-hmm. bu ko soxla balaa mat euh, cinq jours mën na ko jël. cinq jours mën na ko jël. man man cinq jours mën na ko jël. Ah. nga benn biteel bi kese lay doon. ah waa lii tegtal TV tegtal bu dee est-ce que am gan kon ah waa jeex na. te gis nga. dinañ ci wax waaw gis nga kii kii defar lii. Mm-hmm. sa sa ay sa lañ ko defoon. Mm-hmm. moom moo ñu proposé biddew yi. ndeysaan proposé defar ñu taf defal taf moo tax liggéey lu baax rek. moo tax daanaka gis nga yii. Mhm. benn rek yàlla xam ne boo amee doy na. benn am waaw ba ci troisième âge. ba ci troisième âge. benn rek boo amee doy na. jeex na kon gars yi euh, ñi ngi may def si al akim boo paree nga bàyyi xel ñi ngi may ñi ngi ree ñi ngi kii kenn yëngatootul bu baax a baax nee na avi vie euh, am na koo xam ne moom yàkkamti na. Mhm. am na soxna ci force amu ko woon fi mu nekk nii ndax yàkkamti al akim borom sarax léegi nag ñu ñëwoon ci ubbeeku nag ak bayra waaw yooyu yooyu xam naa ni sax mm-hmm. dañuy dañ koy am na moom am na mais dañuy kii ba beneen yoon a ñu demaat xoolaat yow ak sar sarax yi te ñëwaat ñu dem tamit gis nga. Euh, fi war na ne yow sarax daal. liw li ngay wuyoo da nga nur nuru. bokkoo sëriñ si ñuy ñàkk a wóolu ci wàllum sarax am na sëriñ soo xam ne que moom. une ñu def sarax yi nangam ak nangam man damaa d' accord benn affaire gis nga lii di jaaro. jaaro sëriñ bu koy liggéeyal nit sérieux la laaj. client bi ñu koy liggéeyal maandu la laaj ak rafet njort mais sarax tamit kun koy def loo sérieux la laaj. yow mi koy defet rafet njort la laaj dafa am yoo xam ne yombul vérifier moo tax ñaar ñu jub rek a ko mën a seq te nar lu jub moo tax côté boobu mooy mbir bi mhm. léegi nag waxuma sëriñ bu xonet rek bëgg a saraxeloo nit ñi ci force loolu nañ ko moytu sarax daal non loolu gis nga Cheikh waaw dama d'accordul sax di woo nit naan ko nangam ak nangam nangam ko defal sarax dama la géntal dama la géntal loolu yàlla xam ne li ma ko wax ci nit kenn xamul nu mu toll mm. dama sëriñ na nit man de bu ma amul ci yow soxla yàlla xam ne ne mhm. bu ma xanaa lu dul ma ñaanal wala ñu seq korole mhm. wala korole bi dem bu yàgg ba tax na mooy tax yenn saa yi mooy def dara nga da nga am sa da nga am personnalité am kenn du la yeb kenn du la yeb ay di la woote keneen ne diw de dafa ma wax sànqal nangam ak nangam mhm. loolu jaru ko jaru ko de wala ngay mën a menacé waate menacé waat tiitalaat kooku tamit ma wax leen client yi yéen bàyyi leen di ma ma ngir lu jël teg sama kaw gis nga sëriñ boo ko tooñul bu ko ragal sëriñ boo ko tooñul bu ko faale ñemeel ci li ngay def même bu lay tëkk na dem na dem xol dafa am sens bul tooñ rek bul tooñ bul tooñ waaw tooñ daal du du gàllaaj hmm. te àdduna amul solo lépp loo gis day jeex day jeex moo tax damay ñaan daal yàlla na yàlla amiin euh, wëlbati ñi ñi seen xel gàtt amiin mu euh, tënk leen ci jub Euh, yàlla yal na yàlla saafara bépp jàngoro. amiin boo xamee ne ab jullit am na ko. amiin amiin ndax dañuy wax ne gis nga ñaan moom jaamu yàlla la. jaamu yàlla ndax jaamu yàlla gënu ko mag. Hmm. ndax tey jii nga am jafe-jafe ma ñaana la dañ ko am tiyaab laa ci am hmm. donte da ma jox xaalis mi tiyaab laa ci am waaye nag coono ba may daj hmm. mënuma fay ndax lan euh, damay taal sama oto dem dem defi la ma war a def yenn saa yi nga defar dara sax mais risque dala ciy fekk dara mën na la cay gàllankoor dal la d'accord mais loolu lépp sa kaw lay tegu. Hmm. moo tax nit ki nay nay nay bàyyi xel loolu. Hmm. booy bàyyi xel rek yàlla mën na koo dimbali. yàlla mën na koo hmm. dimbali léegi waxtu benn dab looy tàggoo bu du tàggatoo. koy <laughs> sant ak gërëm soxna Seck ñëpp waa <laughs> waaw li may maa ngi yenn saa yi may seetaan sax. gars yi di gën a lente. kii moo gën a rafet kii nangam ak nangam gis nga. Ah, ah, loolu waaw loolu loolu dëgg la sax ndax yàlla moom. man damaa bëgg damaa bëgg nit ku am personnalité. personnalité di tànn la rafet. la comme exemple man nay tànn mbooloo mu rafet. Hmm. mbooloo moom mu tànnaat ca la ca rafet. la ca rafet la ca gën a rafet mu tànnaat ko. Hmm. ndax nit ki euh, yooyu yëpp yàlla moo ñu ko euh, wërsëgale. Hmm. ci doomu aadama. moo tax euh, dama bëgg nit ku am personnalité loolu laa bëgg. comme personnalité nit koo xamee ne du wurta yaakaar ne lii war ko am. Ah, lu ko jomb daal lu ko jomb. Ah, na toog ne tey moom dafa war a am milliard. dafa war a am milliard. moom dafa war a am soxna su rafet. dafa am soxna yu rafet waaw. moom dafa war a am oto yu rafet. oto yu rafet kër yu rafet. gis nga loolu boo ko gëmee. Mm. suñ tubaab mi ngi wax ne man talabal am la wajar wajar. Mm. lépp loo gëm. Mm. wóolu ko patienté ko rek di nga ko jot. moo tax loolu laay dénk doomu aadama. di di di ñaanal mbokk sama mbokk sëriñ di di di leen di leen digal nañu dañuy bennoo. bennoo ndax ndax li gën a am solo mooy yàlla bu leen boolee. ngeen bokk métier. Mm. war ngeen a xamante war ngeen ne doxalante yitte mm. te bàyyi kalaasante beeg kii wax na lii kii waxul lii man kalaame nañ naa yooyu amul solo amul solo tey jii mm. bu ma la doon wax ñaata sëriñ lañ ma kalaame da nga naan ma déedéet loolu amul solo li gën am sens mooy nañu nañu nañu nañu nekk ci li ñu war a nekk te bàyyi dugg ci yenn yi ay politique yooyu yëpp amul solo li am solo mooy li am solo mooy sa liggéey na ca tedd ku am jàngoro nga wér nga fexeel mu wér ko soxla fexeel mu faju toog loolu loolu loolu kese hmm. moo ko moo ko moo ko waral hmm. ñu ko defee daal gëm naa ne yàlla dinañu dimbali waaw sëriñ buy laal asamaan seeg suuf si sax garaawul ay wax lu ñëw mu am di lii dina am yooyu yëpp soxalu ma man ki am jàngoroom na wér ki am soxlaam mu faju te bu ko lor ngeen waxante dëgg jël sa téléphone ah hmm, loolu rek am solo jërëjëf kon ñi ngay gërëm gërëm nga ñëpp waaw ñëpp laa nuyu gërëm naa ñëpp yal na yàlla jàmmal ñëpp rek amin amin sëñ Mountakha Mbacké yàlla fi yàgg loolu te ànd ko ak bépp kilifa diine euh, ñaanal na ñëpp bu baax a baax émission tegtal la woon ñu doon dalal euh, al akim borom saraxi mhm. zéro problème moom lañ doon dalal nuyu na nag dix mille problème mais tey zéro problème lañ dalal mooy al akim borom saraxi euh, bindal yoon bu mujj ci émission mais balaa boobu ki ma habillé Mamadou Ndiaye Diop Sam Couture 645 01 73 mi ngi ci cité Asegna le mi ngi foofu foofu la nekk jaajëfal nañ tamit euh, Ousseynou Ly Allemagne Dieynaba jabate Allemagne Ñaaña euh, Dia Allemagne Penda Fall France Sayer Fall euh, Espagne Sidi Ndiaye Italie Amina Kebe Mbetteel Liberté 6 ñëpp Eva Ndiaye Traoré ak Awa Ngom mbaay Espagne tegtal laa samay xarit ñëpp ñuy bëggee tegtal gërëm nañ leen sant leen bu baax a baax a baax ci tey ak Alaaji Ndiaye fële ca Gambie

al akim borom sarax yi nekk ci Ouest Foire wetu Philippe Senghor ci wetu pharmacie bi nga dis ko sa soxla lu mu ci mu def ko leneen ñu bàyyi yàlla mi nga xam tëlewul dara te mën na lépp équipe technique technique bi ñu àndaloo Mohamed docteur Wadd bu Casamance nekk ci borom këru Ganga Wadd papa yi Mimi Wadd bu ndaw bi nekk ci Baye Massamba Diop ummi kanay yaayam am saay baayam mandawaay magam Cheikh Abdoy rakkam ca Derkele Massamba Diop ciment mooy maamam xarmat ëpp naa tudd tur Sow nekk ci équipe technique bi soxna May Diop réalisation Tektal TV ngeen abonné ci Tektal TV ci YouTube bés bu rouge bés cloche bi euh, kum neex nga abonné kum neex bul abonné ndax njariñ lan yor euh, abonné moom duñ ci forcer kenn ndax njariñ lan yor domaine bii den ko miné ba mu dëgër téye ko France 24 sax yabuñu ci kon sama kaneen ñun duñ jël sëriñu xuusmaa ñàppe sëriñ bu ndaw koy tegi dil kuy naxaate yooyu yëpp soxlawul la karaag yi lan soxla kàngam yi ñu indi leen biir Tektal TV bu baax a baax al akim borom sarax yi xewal dikk loraa ngi dakk